Sénégal de. waaw xam nga loo xam ne moom mosul am. Mhm. bu amee rek euh, c'est normal que mu am ay jeexi jaaxa. Mhm. parce que nit moom bu fekkee ni dafa am lu ko dab loo xam ne tàmm ko xaaru ko tamit. Mhm. bu amee day am li ñu tuddee ci psychologie. ay état de stress ak état d'angoisse. yooyu il faut que sénégalais xam ne c'est tout à fait normal sénégalais bu nekk dund ko parce que amul kenn koo xam ne. Mhm. moom boo jëlee ay weer ci ginnaaw xalaatoon na dund lu mel nii wala ci àddunaam. Mhm. donc c'est tout à fait normal. Mhm. que dëkk bu ko def ci àdduna bi également di vivre lii. seen population seen nit ñi ñun li ñuy dund ci état de stress wala d'angoisse c'est normal rawatina nag ñu boole ci yoo xam ne ay mesures de restriction la comme confinement. nit ñi war mën a toog seen kër tàmmuñu ko. ak dëkkuwaay yi nga xam ne dinañ ko dëkk euh, suñuy njaboot sunuy doom yoo xam ne daal nit tàmm ko. Mhm. changement yooyu yëpp indi état de stress boo xam ne il faut que nit nit ñi xam ko. Mhm. nit ñi bu ñu xamee loolu également dañuy organiser wu pour mu xam ne li tax ñu koy def pour seen njëriñ la. parce que loolu rek moo war a tax nit ki mën a surmonter affaire bi mu xam ne li tubaab di wax ne c'est pour la bonne cause. Mhm. maintenant c'est di leen féliciter ci li ngeen xalaat woo ab euh, ab psychologue. Mhm. parce que mbir mi boo ko xoolee ba ci biir du affaire ay médecine direct maanaam koo xam ne dafa feebar ñu war ko faj. su mhm. ñu toll nii mbiru comportement la xam nga euh, matière boo ne boo gis rek ci àdduna science. discipline bu nekk boo bëggee xam discipline bi ci lan la jëm da ngay da nga xool objet am. objet psychologie mooy comportement. objet médecine mooy maladie. Mhm. objet sociologie mooy fait social. dëgg la mënoon naa lay wax discipline yu baax boo mhm. gisee ma wax la objet psychologie pour wax la ni ci li ñu gën soxla fi ñu toll nii mooy ay psychologue parce que mhm. ñoom ñoo war a wax ci comportement doomu aadama yi. et comportement doomu aadama dafa am ñaar dafa am yoo xam ne comportement doomu aadama yi la boo leen boolee ñoom ñëpp ak comportement doomu aadama bi boo ko jëlee moom kese. loolu tax mbir mi complexe. boo jëlee doomu aadama yi ci group yi il faut nga xool ñoom seen i référence c'est-à-dire que ñoom lan ci lan la ñuy la ñuy la ñuy sukkandiku uh-huh. maanaam boo jëlee fii ci Sénégal boo jëlee fii ci Sénégal euh, am na ci ñoo xam ne euh, boo leen di bëgg a defloo dara il faut nga dem ci kuréel yi ñu bokk uh-huh. boo gisee mbir mi yu ci bëri sax xaw ci yomb mooy li ci kilifa diine yi ñu leen ci euh, encouragé di leen félicité bu baax uh-huh. jox ay ndigal sinon am na ñoo xam ne doon ñu woon topp ay ndigalu doo leen def seen gàmmu doo leen def seen ziyaara doo leen def seen màggal yooyu yu doon jafe la moo tax état bi également parce que loolu bu kenn xalaat ni état bi daf ko daf ko wax rek nit ñi topp ko am na ab travail ab liggéey boo xam ne am na ci suuf. Mhm. deuxième bi mooy li jëm ci psychologie individuelle mooy ci cobare nit ki may wax sénégalais yi bu ñu naïf. Mhm. bu ñu jàpp ne sénégalais yëpp ñoo bokk ni ñuy xalaatee ñoo bokk ni leen mooñee. te bu ñu leen nee lii de feebar la euh, boo leen feebaree woo leen hôpital ak yooyu dañ koy def am na sénégalais boo xam ne moom bu feebaree ci niñ ko mooñee moom day woo waa kër docteur. Mhm. am na sénégalais boo xam ne moom ci niñ ko mooñee bu feebaree jàpp na ni feebar bu ko mën a dal rek moom maa mën mën na ci dara. Mhm. moom ci foofu la war a dem day nëbbatu tant euh, e-, e-, exemple bi ma lay jox parce que am na ci mbir mi. dëgg la mooy. sunu compatriote bi nga xam ne moom ñu ngi ko dépisté ca gendarmerie di xaar ay résultat am donte jàng na donte am na cinquante ans mais dafa daw mhm. waaw ab minicar bëgg a jël njabootam gépp donc kooku moom jàpp na ni affaire kër docteur euh, wa waruñu ko ci saytu mhm. donc il faut ñu ñu xam loolu bu ñu loolu day tax sénégalais gën a am pas-pas jàpp ne bañ a gëm ne ñi feebar ñëpp dañuy wax seen beneen bi am na ci Euh, feebar bi ni ko présenté man defoon naa ci benn texte sama phase phase Facebook wax ne non def leen attention bu leen stigmatiser maanaam bu leen boddi nit ñi. Uh-huh. parce que boddi nit ñi day tax nit ñi am feebar bi. Hmm. def ko feebaru gàcce. Hmm. or feebar bi du feebaru gàcce xam nga feebar boo xam ne ku nekk ci dayoo ci àdduna bi dal na la. Hmm. xam nga bu doon ay feebar boo xam ne feebaru gàcce la wala feebaru euh, baadoo la du dal prince Charles bu Angleterre. dëgg la du dal Euh, le prince Albert bu Monaco ñooñu bu doon xaalis mooy faj. bu doon xaalis mooy tax feebar du dale kon feebar bi du leen daw. Mhm. donc sénégalais il faut ñu xam loolu moo tax bi ñuy wax ay affaire Modou Modou man leen noonu def leen attention boo leen voté nit ñi day am kersa day am rusel goo xam ne nit ki dina am feebar bi moom du ko wax. dëgg la. moo tax stigmatisation ak ak yooyu baaxul. Mhm. donc dina dina euh, nit ku nekk ni ngay dundee feebar bi ak représentation sociale bi ñu ci am dina am koo xam ne également feebar bi mën na ko dal te moom mën na ko bañ a xam. Mhm. professeur Seydi wax na ko. Mhm. donc yooyu yëpp tax na sénégalais yi xam war a xam ne eh, dañu war a topp recommandation médic euh, euh, médicale parce que recommandation état bi. parce que feebar bi également dafa am lu ñu tuddee décision politique. parce que feebar bi comme ni ma la ko waxee. xam nga yaa ngi soog a gis ay feebar yoo xam ne docteurs yi ñoom ñu ngi gën a yaakaar population yi pour pour pour feebar bi jóg fi mhm. xam nga feebar normalement docteur lañ ci faral di yaakaar. waaw mais feebar bi ni muy présenté woo bu jëlee yenn ampleur yi amul benn système de santé boo xam ne attan nga ko pour euh, dékku malade yi ñëwandoo ci yow loolu mooy problème européen yi. Mhm. amul benn système de santé ci àdduna bi boo xam ne dañ ko defar pour defar ay lal yoo xam ne lépp affaire sauvetage loolu amul. Mhm. loolooy particularité feebar bi. moo tax également psychologie individuelle bi daf ci am solo am na ñeneen ñoo xam ne mais ci mbir yu affaire yu yi bu amee nit ñi ndeysaan euh, nekk fi jàpp ne nit ñëppay euh, euh, am solidarité nit ñëppay naqarlu nit ñëppay dem pour ñu faj feebar bi am na nit ñoo xam ne nit ñu leen mooñee seen psychologie. Mm-hmm. amuñu amuñu gëm-gëm amuñu leneen amuñu benn li tubaab di wax empathie. Mm-hmm. mu yërmande ci askan wi. ñoom dañ koy def occasion pour def yëfu caay-caay. dëgg la jàpp nañ fi koo xam ne moom euh, nit ñi normal nit ñi nga xam ne vraiment dañoo normal nga baal ma ci daan dinañ ñëwaat mais kii nan la nit ñi di amee jafe-jafe moom muy nekk. moom muy seetlu waaye ki doon wax ne médecin la allo. am na xale bu góor fan yi de muy eh, docteur Samba yaakaar naa ne eh, kenn dootu ko présenté moom wër na àdduna lay solee tenue tenue tenue militaire wala gendarmerie mhm. di def faux faux faux militaire wala faux gendarme alors te monsieur Diagne faux gi ah. dafa dafa gën a fës ci ci ci feebar bi gis nañ fi faux médecin gis nañ fi foo militaire gis nañ fi foo gendarme ñoom ñëpp te ci jamono ji nga xam ne eh, ñëpp dañuy xeex li nga xam ne mooy feebar bi seen bëgg-bëgg lool la ak agression sax yoo xam ne am mi ngi am ci jamono ji couvre-feu di am est-ce it mën na koo nangu non man en tout cas ñun ñu nekk psychologue suñu xel da koy nangu. Mm. lu tax parce que ñun du ñu du ñu euh, comme suñu spécialité mooy comportement nit. ñun du ñu naïf jàpp ne nit ñëpp nit ñu baax lañ. Mm. Mm-hmm. société boo dem am na ay psychopathe. Mm-hmm. mën nañ ci yokk sax ña xam ne dem nañ Touba di dajji ay boutique ak yooyu. Mm. waaw yooyu dafay am. Mm-hmm. man sama waa kër ak samay jegeyaale dama leen di wax ne def leen attention bu ay couvre-feu amee am na ci ñoo xam ne ci la ñuy gën a am occasion sax wóorul. indépendamment que policiers yi mën nañ la jàpp ak yooyu mais am na ci ñoo xam ne ñoom moment boobu tey rek man am na ku ma waxtaanal koo xam ne wax na ma ni ab boutique ay borom scooter dañ fa dem def yooyu. dëgg la donc yooyu yooyu tax sénégalais yi. Mm-hmm. Euh, euh, décision politique yi nga xam ne état da koy jël. Mm-hmm. parce que état moom moo am doole moo am sañ-sañ ci yu mel nii. ci yu mel nii moo tax ñu naan contrat social. Mm-hmm. mooy ñoo ñëpp fi ñu bokk ñii nekk jullit ñii nekk. Euh, chrétien ñi nekk laayeen murit tijaan ñu doole jooju yëpp dañ koy jël ne amatul jox nañ ko ki nga xam ne moom lañ fal jox ko doole. Mhm. parce que kooku bu amul doole rek ñun dañu am problème. dëgg la parce que fii feebar bi amul ne non feebar bi moom Dakar rek lay yem feebar bi euh, waa Touba Touba rek lay yem waa tu waa dañuy dem Tiwaawan. Mhm. waa Tiwaawan dañuy dem Yoof. Mhm. waa Yoof de Sénégalais yi kenn xamul. Sénégalais boo ci dajeel mënoo xam ne kii kat euh, fii la bokk. ba tax na yu mel ni bu amee waxuma la sax biir Sénégal àdduna bi yëpp fa mu commencé Chine nit ñëpp dañu doon seetaan jàpp na du avance pour dire que euh, euh, feebar bi solidarité moom moo koy réglé solidarité bi également il faut mu am ay mesures d'accompagnement pour caay-caay yi caay-caay yi ñu mën leen a euh, jàpp mhm, démasqué leen waaw démasqué leen parce que nag amul benn dëkk ñu ngi wax sénégalais yi non li wég lii mais sénégalais pour man ci ni ma xamee société sénégalaise pourtant def nañ effort yu bëri amul benn dëkk boo xam ne daf nañ confinement ba nit ñi dem rek euh, euh, nangu loolu même dëkk yi ñuy lim ay Chine ay Rwanda c'est parce que dafa am ay dictature ay régime semi dictatorial mhm. maanaam régime yoo xam ne ñoom dañuy dañuy sanctionné mhm. moo tax sa police yi euh, première journée bi ñu def seen seen entrée en matière boobu amoon solo. Mhm. parce que am na nit ñoo xam ne il faut ñu ragal pour respecter la. pour mun a waaw boobu am na ñoo xam ne génnatuñu ba léegi amul confinement boo jël amul benn dëkk bu jël confinement boo xam ne wàccewul ay euh, takk deram ci ci ci mbedd yi. Mhm. la amul benn dëkk ci àdduna boo xam ne dañ ne confinement rek dem leen toog ñëpp confiné wu amul. Mhm. société boo gis day am ay récalcitrant. mooy li xale Médina yi doon def. parce que am na ci ñoo xam ne du ñu am mukk conscience réellement ci li xew. dëgg la ba ñoom dañ koy def po. ñeneen ñi dañ ciy boole caay-caay ne ñi niñ leen moo ñee jàpp nañ ni ñoom lépp lu am rek dañ koy wax am na beneen ti kate ti bu sénégalais boo xam ne te loolu bëri na ci sénégalais yi hmm. sénégalais boo xam ne moom day ragal ñu saytu ko ci yaramam génn ay feebar hmm. am na sénégalais yoo xam ne ñu ci ëpp ci ñun tàmmuñu dépistage alors euh, monsieur monsieur Diagne am na it euh, ñoo xam ne euh, bi feebar bi amee ba léegi dañu xaw a ànd ak psychose bu ñu waxee coronavirus rek dañuy xaw a daw genre Pape Maguette gi bu ñu waxee coronavirus boo ñu def situation du jour rek seen xel dafay dañuy xaw a tiitaange daal loolu ñooñu moom lan mooy seen kii atte waaw ñooñu moo tax psychologue yu bëri dañoo waroon ànd ci mbir mi di di di di jàppale ñooñu ci même yi gis nga ci test yi ni muy bëree dina am ci ñoo xam ne ñoom ah en réalité amuñu dara mais bu ñu seetaanee signes yi di ko seetaan parce yaa y' a beaucoup de publicité. Mhm. ñoom signes yi dañuy dem intérioriser ko ba mu ba xaw a jàpp li ñu tuddee ci tubaab hypochondrie ba lépp loo xam ne laal na loolu seen bopp bu xawee métti tuuti sax ñoom ñu xalaat feebar ba. bu ñu sëkkatee benn sëkkat xalaat feebar ba. man dal na ma dal na ma professeur seen yaram leneen tàng ko ñu ne feebar ba. Mhm. ba loolu da di eh, eh, yóbbu ci état stress permanent <laughs> ak ak angoisse te loolu mën mm. na indi ay jafe-jafe mm. dëgg la li tax mooy gis nga nit boo stressé sa yaram day fragile mm. et feebar dugg la day yomb dëgg la ñooñu dañ leen war a gunge moo tax man li ngeen def nii maa ngi koy rafetlu parce que il faut nit ñi di woo psychologue yu bari mm-hmm. ci plateau yi ñu dalal xelu nit ñi mm-hmm. man ñi may suivre sama page Facebook yu ci bëri ay panique ak ay stigmatisation yooyu yëpp dama ko dalal. Mm-hmm. d'accord euh, monsieur Diagne Pape Maguette am na laaj boo xam ne bëgg na la ko laaj xaama bàyyi la ak moom. waaw toujours rek euh, ci ñaar yi nga wax muy euh, ñi nga xamante ni moom mooy bu ñu waxee rek li nga xam moom mooy couvre dafa am lu muy ànd armée bi dañuy wane seen bopp ak waaw dama ne professeur. professeur yaa ngi may dégg. waaw maa ngi maa ngi dégg. waaw di wax rek ci li nga wax nii sànq ak benn question bi pour appuyer rek li nga wax sànq. muy ñi nga xam ne bu ñu defee couvre-feu dañuy waree seen bopp ba am ñoo xam ne bu génnee sax ñu teg leen lu metti Afrique du Sud de ñoom dañuy def seen couvre-feu génne li nga xam ni moom mooy ay chars de combat Maroc tamit noonu ak yeneen dëkk professeur bu fekkee yaa ngi may dégg benn question bi ma lay laaj rek ñu ngi nekk ci li nga xam ni moom mooy ci couvre-feu te boo xoolee toll nañ jamono joo xamante ni violence conjugale yi dafa bëri ci biir réew mi jëkkër yuy dóor seeni jabar am ay soxna yoo xamante nii tamit dañu doon teg fitna seen i borom kër boo xoolee ci bitim réew France ak itali am na ñu bëri ñoo xamante ni fi mu nekk nii euh, violence conjugale mi ngi commencé di bëri foofu tey euh, ñu amoon lu mel noonu doon xew muy violence conjugale ñu nar a jëm tamit ci confinement bu ñu ko defee tey professeur lan ngay wax ci loolu. waaw mais loolu confinement bi day ànd ak jafe-jafe yu mel noonu. Mm-hmm. xam nga euh, mooy li may wax xam nga ñu bëri xëy na tàmmatuñu woon doon dëkkan doon seen kër. Mm-hmm. am na ci ñoo xam ne dañ doon génn di passer plus de temps dehors qu'à la maison parce que tout simplement day am jafe-jafe ci seen euh, dëkkandoog seen jabar wala seen jëkkër hmm. ñeen ñenn ñi sax seen i doom hmm. et là situation bi impose na ñoom ñu war a nekk ensemble di gisante hmm. mu war a mën a indi ay jafe-jafe moo tax euh, am na ñuy wax sax ni confinement bi moo mën na yokk ay ay taux de divorce yooyu yooyu yëpp xëy na après bu mbir mi passé ay ay gëstu dina ko wane. Hmm. wala fe fee dina ko wane. Hmm. mais nit ku nekk dafa war a def dafa war a def effort xam nga kër dañ koy organiser pour am ay occupation ci biir kër gi. Euh, nit ku nekk euh, mën na am sa biir kër loo xam ne. Hmm. mën na la mën na la wétali mën na la occuper. parce que bu fekkee amu nit ñi amuñu occupation ci biir kër gi rek. mën na indi ay ay ay jafe-jafe occupation mooy ñii lecture moo la neex euh, ñii Euh, dem foog xale yu tuuti moo leen neex euh, temps bi nga xam ne danga ko doon passé door il faut nga organiser wu euh, ñii mën nañ seetaan ay film à la télé nit ki daal moom mooy organiser wu ci yi nga xam ne moom mën na ko occupé wu moo moom moom mu def ko ba maytu di passé temps boo xam ne ak koo xam ne bu ko passé ak moom temps mën na am ay ay xuloo wala ay baat yu sew yoo xam ne mën nañ ci jàll Euh, donc euh, yooyu nekk na ay quelques jafe-jafe yoo xam ne ñun am nañ ci yaakaar en tant que psychologue que mën na am ci biir kër yi. Mm-hmm. waaye tamit euh, professeur mën na nekk moment boo xam ni mën na nekk moment wu jiboo diggante jëkkër ak jabar yu xuloo woon de tamit. waaw loolu également il faut nit ñi xam ko. Mm-hmm. mën na nekk moment yoo xam ne mën na suudee wala mu recoller waat loo xam ne pratiquement demoon na bay waaj a yàqu mhm. wala ba ba ba ba yàqu mhm. euh, parce que euh, parfois dañuy wax ne distance day indi incompréhension mhm. or euh, rapprochement bi nga xam ne situation bi da koy créer mën na indi compréhension entre un couple boo xam ne pratiquement loolu passé woon na di di couple yi sax mën nañ découvrir mën nañ gis yoo xam ne ku ci nekk ci ci lu baax ci moroomam loo xam ne mun soupçonné wuñ ko woon. parce que ay yeneen facettes daal waaw yeneen facettes yoo xam ne <laughs> euh, y avait une distance. Uh-huh. Euh, yooyu également euh, mën na nekk situation boo xam ne c'est avantage uh-huh. <laughs> professeur benn benn question bi may daanale xam naa <laughs> waxtu bi moo ñu njatt actuellement léegi ngoone dóor ma moom damay dóor rek moom moom xam naa bu ñu dëkkoon moom moom dina doy waa trop. man ak moom ak Seydina ak Ablaye <laughs> mais benn benn question parce que xool nañ jamono jii nga xamante ni bu ñu demee ba